weesoo dañuy ñëw ci wàllum cinéma rawatina ci wàllum théâtre ginnaaw ba artistes yu bëri di génne rek di ardo ci ñi nga xam ni moo di Sanex ak jegeñaaleem di na ak Zozo di xam leen rek que ñi ni mel dañuy liggéeyloo artistes yi ba dañuy liggéeyloo théâtre kat yi ba pare lu leen fay li nga xam ne moo di seen i xaalis wala duñu leen jox li des ci seen contrat ki ni mel ni nag ki ci mel ni nag ba nekk ci série boobu noonu di polygame tey génn na barki démb laata loolu nag amoon na artiste comédien bu njëkk a génn rek di leen xamal ni rek que kile di Sanekh ak ñoom Zozo la leen di liggéeyloo bu pare du leen fay li ni mel ba tax na nag réew mi yëngu na ndax fu waaye nekk rek mi ngi àddu ci li ni mel ñeen ji nag ñi ngi wax sax naa naan ku ñëpp tufli nga daal di tooy li ni mel nag di jëf joo xamante ni kenn rek ci askanub Sénégal rafetlu wuñ ko ginnaaw juma bi ñu génnoon ginnaaw ab juma bu ñu déggoon fan yu génn rek ñoo xam ne dañ ko doon cambriolé maanaam dañoo jël keesu jàkka ja yóbbu téere alxuraan yeeg jaade ya maanaam bàyyi ñu fa dara naka noonu nag ñuy lijjanti boobu kaa kaa boobu nag mujj sax sotti nag ñoom nag ñu def conférence rek daal di nekk ci biir jumaa ja di xeex foofu noonu ci biir jàkkay boobu néegu yàlla boobu lañ doon xeexee rek préfet boo xamante ne moo jiite bi lépp commune woon na leen rek ngir rek imaam yooyu nekkoon ca bi lépp néegu yàlla di xeex rek ñu convoqué leen xam rek fan nañuy mujjee dañoo convoqué woon dañoo convoqué woon li ñuy wax ab AG ngir rek leeral li fi jot am ba tax na nag naka noonu nag la daal di coow jibee foofu noonu rek ñu nekk fa di sànnante ay siège nag ab xeex bu metti daal ci topp. ñu ñëw ci wàllu football ndax ki nga xam ni moo di Bouna Sarr bokk ci sélection équipe bu sénégalais bi nekk joueur foofee ca FC Bayern de Munich mu am problème foofee ca aéroport bu Munich ginnaaw rek ba mu wàccee ngir dugg ci bi lépp dëgg ñu daat ko fa jot daat koy. malmené nag ba tax na nag kile di Bouna Sarr daal di tàq foofu noonu yëpp moom nag ñeen ñi sax ñu ngi koy wax dafa mën a jugee ci bi lépp club ndax rek joxuñu ko gëddam dañuy ñëwaat ci li nga xam ni moo di coowal hôpital de Dantec ginnaaw nag ba nit ritu réewu Sénégal neewee rek day tëj li nga xam ne moo di hôpital Dantec ngir rek defaraat ko ba jël yenn sax ci ay bërëb bu fajukaay yóbbu ko ci tas ko ci hôpital yu nekk fii ci biir Sénégal léegi nag boobu léegi nag bi lépp mujjut démarré ndax rek am na ñaari service yu nekk biir euh, Dantec yoo xam ne rek ñoo lor bi lépp reconstruction ba tax nag li ne mel démarré wul application de la Saria foofee ne ca Touba ginnaaw nag ab vidéo buy circulé fan yëpp ci réseaux sociaux yi di ab ndaw daal boo xamante ni dafa jotoon njaaloo ñu teg ko ci ay nit yu wër ko jàpp ko di ba tax na nag ñëpp nag fu internet nekk ñu ngi nekk di rafetlu li ni ma di wax ne rek lii buñ ko defoon fii ci Sénégal lu bëri rek mën na fee wàññeeku te nag ñoom jàpp nañ ni li diine wax rek dafa gën te buñ ko defoon yenn ñi rek ñuy saas waa ànd sàmm jikko yi rek ni mel naaw ab émission bu ñu leen invité woon ki nga xam ne nag moo di Malick Gakou rek moo accusé ki nga xam ne moo di euh, Gaston Mbengue na rek dafay ki nga xam ne moo di Macky Sall bi lépp émission nag ki nga xam ne moo di Aïssatou Diop Fall moo ko doon animé muy face a face di émission boobu di am ca télé bii di TFM di la rek nag moom mi di Malick Gakou dafa ne rek ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue kii di njiit bu réew Sénégal da koy utiliser rek pour jël ko rek comme maanaam li am ci réew réew mi mu bëgg rek bëtub Sénégal yi daal ci muuru ba tax na nag moom mee di Gaston nga heure boo xamante ne rek Sénégal nekk nañ ci coow war lijjanti benn mbir rek lay tëgg lii di ab ci dese rappeur bi du Nuuze Serval moom nag dafa ñàkk bakkanam moom nag li ko yóbbu nag li nga xam ne moo di crise d'asthme ci la bokk ndax ak di xam nañu rek jàpp ni nag di rek daal tolloo ci ñaar fukki at ak ñeent amee woon li nga xam ne moom la bi di woowee crise d'asthme asthme ma nag nekkoon maladie bu yàgg ci moom te chronique ci moom sax moo ko yóbbee defee bi ni mel ndax gannaaw ab crise bu mu defoon naka noogu nag laata ñu koy sauver rek mu jaaree fa ñàkk fa li nga xam ne moo di bakkanam xibaar dinañ ko ndar keppee rek coowul ñaar artistes yi di Jules César ak ki nga xam ne moo di Kalla ginnaaw ab shooting bu ñu doon def rek fépp ci réseaux sociaux yi ñu doon publier rek ne ñaar ñi dañoo marié li ni mel nag démentir nañ ko di xam ne rek li ni mel rek publier woon di ab tournée bu ñu doon def mbokki internetu SENactu TV tey nag dinañ leen indiloon ci di a fës ci yi dañ daje ëllëg waaye laataa loolu way di abonné di fàtte di appuyé wu ci cloche de notification bi pour de bu na am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique ci seen chaîne YouTube SENactu